monsieur Mbow Cheikh Mbow ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. ñoo ngi leen di fay di leen sant. di la jaajëfal bu baax a baax monsieur Mbow ñu la dalal euh, tey ji nga xam ne coow laa ngi lëmbee ci mbir mi ñu wax ne programme UNESCO la ñu bëgg ko dugal ci suñu programme éducation ñu duppee ko éducation sexuelle et reproductive euh, tey lan mooy position ko si dep ci bi programme bi ñuy laam lame waaw li may tàmbali dégg nañ ko parce que nekkuñu fa woon kenn invité ñu xam sax lu tax euh, jotuñu nag jéem nañoo liggéeyante pour jot kayit ñi nga xam ne moo koon euh, activité boobu nga xam ne ministère de l' éducation moo ko organisé woon fële ca mhm. euh, te ak jàppale wu UNESCO. Mhm. li nga xam ne nekk na lu leer te ñu dégg ko ci mbedd mi mooy que ni évidemment que dañu bëggoon fexe ba mbirum njàngal sëy. Mhm. nan lañ koy gën a xóotalee ci l' école bi gën koo yaatal gën koo wàccee même ci suufu suuf. loolu nag moo nekk loo xam ni évidemment que COSYDEP mënu ci ànd. loolu moo waral ñu jàpp ni euh, ñun amul kenn ku ñu war a wax nan lan la ñu war a jàngal suñu doom ak naka lañu ñu war a jàngalee loolu ñun sénégalais yi ñoo ko war a wax sénégalais yi noppi nañ ci wax ko ñoo noppi nañ ci ci depuis ñu waxee ci assise nationale de l'éducation. Mm-hmm. où nous avons rappelé que dana baax que bu ñuy jàng ñu fexe ba jàng bi ànd rek euh, ngëm-ngëmu réew mi te ngëm-ngëmu réew mi kat moom sax indil na boppam ay tontu ci nan la ñu war waxtaanee ci mbirum ci mbirum góor ak jigéen ak xale yi ak seen i màggaay et mm-hmm. boo xoolee euh, ci suñuy aada amoon nañ bàjjen ñu doon gunge xale bu jigéen buy waaj a commencé gis mbaaxam. Mm-hmm. di ko xamal euh, amoon na lël yi nga xam ne ñoo doon gunge góor ñi am na aussi ay cadre yoo xam ni diggante xale yi danañ ci mën a jàppalante. Mm-hmm. boo xoolee suñu religion suñu suñu su muy l'islam muy christianisme ñoom aussi wax nañu naka la ñu war a gunge xale bi bu waree jëm ci mag buñ lay jàngal sangu set. mooy ñoo ngi lay jàngal déjà euh, nan nga war a def euh, yow say relation ak euh, ak lépp loo xam ne jëm na ci mbirum góor ak jigéen. Mm-hmm. suñuy programme aussi noppi nañ ci wax ko boo demee élémentaire ñoo ngi jàng éducation sanitaire di jàng éducation à la vie familiale. Mm-hmm. di jàng science de la vie et de la terre au moyen secondaire donc tontu yi nga xam ne moom la ñu war a indil mbir moomu ñun am nañ ko ba pare kon nag wuñu kenn koo xam ni moo ñuy moo ñuy solal ay bët. di ñu wax lan lañ ko war a defee ak nan lañ ko war donc loolu moo waral ñu rafetlu taxawaayu syndicat yi ca rencontre boobu du ñu ne ñoom du ñu signé lu mel noonu day wane ni évidemment que syndicat yi ñoo ngi ko ni li nga xam ne tënkoon nañ ko ci assises mhm. te wax fan la ñu bëgg a jëmale ci ñuy nekkoon ñoom ñoo ngi koy continuer de surveiller kon daal ñu nekk na loo xam ne dañ ko rejeté ànduñu ci d'accord ñu ci dañu jàpp mooy réew mu nekk ak ay réalité te suñu réew pareegul pour dugg ci façon coow loolu jàpp nañ ni dafay gën a réeral xale yi waaye nekkul loo xam ni daf leen mën a teg ci yoon ndax document yi ñuy euh, jàllale ci réseaux sociaux yi doyul firnde. firnde ci ban fànn. maanaam ñu xam euh, lan moo ñuy xaar ci boobu boobule programme donte ne ngeen yéen jotu leen ko te it kenn invité wu leen donc euh, fu mu nekk nii réserve la balaa ngeen ci xuus bu baax. non c'est-à-dire que liñ liñ li ñu wax mooy li ñu gis ci documents yi. Mhm. kay weesu naa doy ndax documents yi moom tas nañ ko tasaay boo xam ne sax ñun pour ñun. war nañoo xoolal sax na lañ koy tasee. Mhm. parce que boo deful dànk sax li bañ da nga def te doo yëg ndax am euh, mhm. am na nu koy tasee day mel ñoo leen koy jàngal. Mhm. kon nag war nañ cee def attention ci fànn boobu. waaw leer na kay nii euh, loolu mooy li xam ni fës ci ci jëmukaayu euh, UNESCO. donc ñun ànduñu si loolu leer na. Mhm. maintenant bu ñuy wax na euh, gëstu mooy gën a xóotal ak mhm. gën a def ay proposition loolu mooy weesu li nga xam ne moom la ñuy gis. Mhm. parce que mbir boo koy jàngat da ngay da ngay profond da ngay dem ba ci biir biiran loolu moo waral ñuy ñuy wax ay jot yeneen euh, kayit yoo xam ni mooy tax ñu mën ko jàngat mais fi ñu toll moom. li nga xam ni position la bu leer na bu ñu am mooy mënuñoo ànd ci lépp lu jëm ci noonu ñu gis. Euh, ñoom la moom la ñu tasee affaire éducation sexuelle. Mhm. jàpp nañ ni éducation sexuelle. Mhm. suñu réew tontu na ci ba pare. suñu aada wane na nañ lañ koy lijjantee suñuy programme tontu nañ ci assises yi wax nañ ci donc loolu ñun doy nañu kon nag warul am benn dispositif boo xam ne dafay ñëw changer gëm-gëm bi ñu ci am ak euh, fi ñu toll ci Sénégal. tey jii ñu wax ni euh, ministre de l'éducation daal na ci tontu ci coow loolu la nee fas yéenew ñu euh, soppi suñu programme tey wala suba mu mel ni gannaaw coow li mu génn nag ànd ci tontu te donte am na réunion. tudd nga ko sànq le 21 décembre bu ñu génn bi ñu wees ca la ñu amal boobu la réunion nga foog ne bu ñu amuloon mbébét googu danañu jox seen bopp boobu le temps gi ñuy réunion pour waxtaan ci ay programme waa xam nga mbébét moom dafa nekk loo xam ni dafay dafay dafay xóot ñun daal li ñu jàpp mooy ministre moom ñun jotuñoo gis sax tontu bi mu tontu waaye bu ci tontoo def na li ko war parce que coow bu tolloo dafa war tontu leeralaat euh, ban gis-gis lañ ci am. donc loolu dafay nekk kon nag lu ñuy rafetlu bu nekkee tontu na ci. Mhm. maintenant bu fekkee nit am na mbëbëtu def lu mel noonu am na ci droit waaye ñu ñoo am war a am mbëbët ak doolewu bañ a nangu lu ne donc ku nekk da ngay am sa fula rek ci àdduna bi ñu nekk nga xam ni agenda yi dafa yaatu bëri ku nekk am sey gis-gis ku nekk bëgg a bëgg a sa moroom kon boobaa nag yow askan yaa war a am fulla ba nga xam ni doo génn ci li nga xam ne mooy sa ngëm-ngëm kon yow mënuloo mënuloo tere kenn mu am. Euh, gis-gisam waaye yow mën ngaa mën ngaa tere kenn mu bañ laa yóbbu ci gëm-gëm boo xam ne amuloo ko. Mhm. donc la boobu rek la sénégalais yi war a am te defe naa ba jusqu'à présent loolu la ñu am euh, ñëpp jóg nañ euh, ñëpp ñaawlu nañ ko ñëpp nee nañ bu ko nit doon jéemit na ci génn parce que ànduñu si ñëpp fàttali nañ ne ñun am nañ lu ñu doy loo xam ne noonu la ñuy tontoo mbirum éducation sexuelle te loolu doy nañu fi ñu toll ni Sénégal kon nag loolu mooy je crois mooy li ëpp mooy li ëpp solo maintenant li ci des mooy il faut ñu fàttaliku ni l'école moom bu ñu koy wax wax dëgg yàlla weesu na classe ba léegi xale bi mën naa jàngee fu ne kon nag fi may gën a ragal man mooy gën a tax sax mooy feneen fi nga xam ne sax euh, neexul a maîtriser mooy école bi bi jaar ci internet bi. Mhm. mooy école bi jaar ci télévision bi. foofu booy xool léegi euh, récemment gis nga fi ay jouets yoo xam ne génne nañ ko ci mbirum góor jigéen. Mhm. yooyu daf lay échapper donc il faudrait sax suñu vigilance ñu gën ko yóbbu ci fànn yooyu parce que lépp lu jëm ci l'école jàngalekat yi fa nekk ay jàngalekat góor gi lañ. programme bi fa nekk programme nguur gi la loolu war nañ ko mën a maîtriser bu ñu amee fulla maintenant nag lépp loo xam ne jëm na ci yeneen canaux yi te mu gën a naqaree maîtriser foofu lañu war a gën xar suñu tànk suñu tànk tubéy pour que évidemment que suñuy doom duñu dugg ci loo xam ne nii euh, wax dëgg yàlla nekkul li ànd ak suñuy ngëm-ngëm lu ànd ak suñu aada lu ànd ak suñu religion kon daal da ngeen am tiitaange école euh, ñu dugal ci li ni mel mu pervertir xale yi. waaw ñun euh, amuñu sax boobu. ndax ñun jàpp nañ ni euh, acteur u école bi am nañ fullawu kenn du fa dugal lu ñu bëgg Sénégal si suñu société civile toll mhm. société civile dans son sens large mooy syndicat yi muy parents d'élèves yi muy yéen presse toll nañ foo xam ne am nañ fullawu du lu ne la nangu ñu dugal leen ko ci biir mhm. donc amuñ si benn tiitaange fi ñu ëppee tiitaange kay mhm. mooy fi nga xam ne dafa naqaree maîtriser mooy yéen seen télévision yooyu nga xam ñeen saay moom ci ay séries yoo xam ne dafay def promotion wu affaire yooyu nga mooy mooy internet bi nga xam ne xale bu ne mën na faa dugg. Hmm. bu amee téeméer wala bu connecté wo kon yooyu foofu la ëppee am sax tiitaange mais pour ce qui est de moom muy institution loolu ñun acteurs yi ñoo war a am fulla te am nañ fulla bi surveiller ko ba nga xam ni lépp loo xam ne àndul ak li ñu tënk jàpp ko juboo ci ni loolu la ñu war a jàngale euh, du ñu nangu mu dugg fa. Samba wax ci euh, li nga xam ne mooy njàng meek njàngale mi jamonoy mbas mi tey jii wax nga ko sànq euh, li nga xam ne mooy deuxième vague mën nañoo wax ne sax bu ñu gisee courbe bi moo ngay installé wu ci mim réew teewul ñoo ngi wax ne amoon na protocole sanitaire tey it am nay enseignant jamono ji nee nañ dañoo am bi lépp jàngoro ndax yéen ci ko si dep am na benn situation bi ngeen def ba mën a am benn carte ci situation euh, ñi nekk ci école yi. bu école bi ubbee ba def une semaine def nañ situation bi mu defee weer it def nañ situation jébbal nañ ko nguur gi jébbal nañ ko askan wi jaarale ko ci yéen presse mhm. li ñuy wax leer na nañ mooy école bi muy ubbi la vingt cinq genn wàllu million kese la léegi nag boo jëlee Sénégal def ko ñeent xaaj benn xaaj bi moo ngi ci école bi muy quatre millions xale ak ay jàngalekat. Mhm. ne bu fekkee nangu nga ni deuxième vague ñëw na il faut nga gën ko aar ndax boo ko aarul mën na faa jaaree te gën a law ci biir askan bi mhm. aar ko nag moom euh, pour ñun jafewul parce que boo jàngatee ci première vague bi rek war ngaa mën a xam nan ngay pour aar ko mooy benn mhm. fexe ba nga xam ne matériel bi war a aar ñi nekk ci l'école bi mu mat fi ñu toll gis nañ ni matériel bi manqué na mooy fexe ba table baa yi nga xam ne manqué na jàngalekat yi nga xam ne manqué na ñu ko mhm. saafara ba nga xam ne xale yi duñu loo nekk ñett ba ñeent ci portable ba loolu nekkul li nga xam ni dina mën a tax nga nga nga tontu nga tontu mbas mi mais it fexe ba école bi am ndox am am gànnuwaay euh, yu fonctionnel loolu aussi nekk na lu ñu mbas mi jàngal. te gis ñu hmm. mu am ci ay jéego yu am solo. moo tax kayit bi ñu jébbal nguur gi mooy que war nañoo góorgóorlu ba nga xam ni jàngat bi ñu amoon ci mbirum euh, euh, vingt cinq juin bi. Hmm. que ñu mën koo jëmmal ci biir l'école yi ba suñu l'école mën a rëcc ci mbas mi. su buñ si rëccee kat dana tax ñu aar suñuy jàngalekat aar suñuy élèves mais surtout li ci ëpp solo mooy dana tax ba ñeenti million xale yooyu ñoom ñëpp ñu nekk ay acteurs de plaidoyer euh, mën a conscientiser famille yi parce que gis nañ ni relâchement bi am dafa nekk relâchement général. Mhm. laal askan bi yëpp. et donc mën nañoo war a mën a jaare ci l'école bi pour non seulement aar école bi waaye fexe ba école bi yëpp nekk jouer rôle conscientisation famille loolu pour ñun mooy li ñu war ci mbirum mbas ko deful daal wax dëgg yàlla day mel ni. Euh, li ñuy wax dëgguwul su ñun parce que boo nee deuxième vague am na dafa am lu mu war laaj ci ay jëf. Mhm. te jëf yooyu nag wax dëgg yàlla xaw naa tardé wala bokk matewul. Cheikh Mbow yow ngay directeur exécutif bu COSYDEP. ñoo ngi leen di sant bu baax la ne bonne heureuse année également. ah oui excellente année aussi ak say ñi lay ñuy déglu ñëpp ñoo leen ñaanal ñu jëm ci atum bu eh. gën atum deux eh, eh. moom. wax dëgg yàlla nekk na at bu ñu war a weesu. ndax euh, amul benn souvenir bu neex